ci loolu la ñu war a gën a saytu. ak visite technique bi et cetera. nangu permis nag moom ku def naka su dul noonu def ko defaat ko dañoo war a nangu sa permis mhm. dañ koy def fépp képp koo xamante ne permis à point war naa am. ñu mhm. exécuté ko. Mhm. changé xool oto yi nga xam ne ñoom ñooy voyagé. ancienneté oto yi oto yi baaxatuñu yu ci bari. visite technique yi yu ci bari ay dóor la nañu fexe visite euh, kii def visite technique bari ci dëkk bi. benn technique moo am. Eh, ci réew mi benn centre visite technique. Eh, nekk aan bi mooy bi nekk aan bii. Sénégal gépp fa la ñuy daje. fa la ñuy daje. on a quatorze régions. Mhm. moom na wuti ay partenaires financier yu ko jàppale au moins Sénégal trois centre de visite technique. ñu délocaliser ko. Mhm. mu nekk ay pôle de région. Mhm. Fatick Kaolack. mun nañoo bokk benn. Fatick Kaolack Thiès ah. mën nañoo bokk benn nga jël jur Thiès Jurbel tubaab et cetera bokk mhm. nañ ko wuti na wuti ay fonds ñii dañu war a wuti ay kii ay partenaires financiers ah, mais bon moom buñ ko wutee ba noppi en fait nga waxee moom ça veut que ñoom ñi ngi si liggéey damay joxe su waaw du dara fii ñëpp ngi góorgóorlu mhm. nañu wut d'abord ay partenaires xool naka lay ba yokk centre de visite technique yi mhm. ñaare ba ñu xool aussi tali yi tali yi parce que route nationale bu Louga bi jëm Ndar boobu. baaxut dafa ndaw tellement tali am ay. montagne yi bon. même su nañ ko. Mhm. nañ ko xotti. en attendant autoroute bi président Macky Sall. Mhm. jóge Dakar dem ah li ñu war a liggéey seen mhm. que defal na leen lépp non mais état continuité la. c'est normal projet boobu moom man sama waa Louga laa moom moom j'y Sénégal yi yëpp ci jàpp. ñoo ñoo ko bëgg. Mhm. dama ne fépp. mais Ila bii ñu taxawal nii. Mhm. mais du murid rek fay jaar di. <laughs> voilà tali la tali amul diine amul tarixa amul dara. Mhm. tali la bu normal bu jëm ci dëkk ba. da romb dëkk ba jël ko kon ne dem Daaru Musi wala Louga wala Nangam. Ila Kaolack bii day kon ne ba Kaolack. romb na Fatick dem dakaar Ndar autoroute day desservir ñëpp lay jëriñ ñoom dañu wuti ay partenaires financiers yaatal seen centre de visite technique yi xool naka la ñuy def ba gën a waxtaanaat nu ñuy moderniser waate centre euh, euh, parc automobile bi seet aussi naka lay def ba yéen oto yoo xam ne amatuñ droit daw ba si tataay yi fii am na tataay yu bari xam ne amatuñ droit daw donc am nañu leen di xaar mm-hmm. sur la table nangu permis nag day dagan ci benn moment dama si ànd ak moom parce que lii teyeef la ku def defaat def defaat teyeef la mais aussi ñu bàyyi xel ñi nga xam ne dañuy màndi ba xamuñu fu ñu jëm di suus di voler di tox seen i joint di dawal dafa bëri indiscipline boo xam ne réew mi tant sopp wuñ ko duñ avancé. mais policier ak gendarme yi ñuy romb ci kaw tali bi. corruption la rek wax na wax bi ba pare mais tuddul homme de tenue. c'est la corruption. waroon na cee wax parce que oto warut a jógee dem Ndar. ay faaram tàkkut oto joge Dakar di dem Ndar ginnaaw oto ba ba vitre arrière bi toj yi mm. ñu def ko bâche bu bula damaa taxaw ci benn jour am fu ma doon dem ma ñëw boo senegal pont Sénégal 92 ci entrepont bi mm. avant may kii jege si rek mm-hmm. gis benn oto policier bi duraate ko barke alxuraanu karim ginnaaw gi mbuus bu bula dañ ko scotché ci ginnaaw waaw amul vitre arrière quoi dañ ko scotché mbuus bu bula ba taxaw di xool nu policier bi di def ak moom. Mhm. cinq minutes ñu bàyyi ko mu dem. waa ji oto bi dem yoonam ma topp si ginnaaw oto bi ma ne xoolal ma amul amul vitre arrière. Mhm. dañ koo kale ak mbuus policier bi jàpp na ko xam na si dara bàyyi ko mu dem. loolu c'est c'est c'est c'est le role du ministre de l'intérieur. Mhm. et je crois que ki ñu am fii ku bees ki ñu am. c'est un général. je crois que day jël ay matuwaay si loolu parce que Sénégalais sonn nañ ci loolu ñun ñu mel ni amul yaakaar. policier boobu moom la gars yi soxla. on n'indexe personne nag. et on n'accuse mais du ñàkk mais il faut plus de mhm. pour suñu am de loi yi ne ci tali bi. te yor sécurité routière bi. parce que lu bari aussi des fois dañ koy bàyyi mu jàll te waruñu ko bàyyi mu jàll su boobaa mooy andi jéey ak musiba. Mhm. donc yaa a beaucoup de paramètres am ne c'est des responsabilités partagées. ab réew ñett yi mënu koo doxal indiscipline notoire hypocrisie ak malhonnêteté Sénégal ñett yi ñoo ko séq indiscipliné lañ notoirement mhm. on est trop malhonnête à travers nos intellectuels ba pare am na éducation boo xam ne demal Japon oto yi lu ñuy bari bari bari bari ku ne xam nga heure bi ngay dem ak heure bi ngay taxaw mhm. ñu dimbale waa Kaolack soo jëlee Dakar Kaolack bi mhm. soo génnee Fatick di dugg Kaolack mais talib yëpp camion malien yi ñoo koy xëccoo ak guinéen yi ñoo koy xëccoo ak particulier yi. te talib c'est tellement restreint da waaj talib bàyyi leen. yooyu yëpp ba ay mesures de sécurité yoo xamante ne war nañoo xool heure bi dawal camion yi. ak heure boo xam ne auto particulier yu ndaw yi ñoo koy daw. su njaga jaay yu si bari baaxatul. car rapide yi baaxatul yu si bari. si bari baaxatul y'a beaucoup ñii ils ont beaucoup de choses à faire. il a de choses moom El Malick Ndiaye à faire. que de nañ peinture terre bi verte zone rouge ak nañ peinture tali verte zone on n'est pas dans ça les Sénégalais ne pas dans ça. d'accord euh, euh, justement sax bu Dakar génne na benn communiqué di artu euh, dawa ko sareet yi ba zone yu bari sax poste Médina Petersen secteur yu bari dafa texte bi xaw gudd ak point yi mu yu ñu yu ñu taamu ngeen ni sareet yi bu ñu fa jaar mais pour may au moins BRT bi sax mën a nooy circulation yi mën na am dem ak ñëw mën a yomb alors. Euh, conseil de la magistrature Bassirou Diomaye fay ñu ngi yëg ci benn euh, communiqué ni euh, ña ngay def li nga xamante mooy enquête de moralité dafa mel ne sa justice ba moom am na enquête de moralité naka nga ko gisee. pour nommer. waaw. moom président magistrat yi fa war a siège. moom Bassirou Diomaye Faye moom enquête de moralité boppam la waroon njëkk def moom. ah bon le président Bassirou Diomaye Faye. ci naka. na def enquête de moralité boppam. sur quoi en fait. naa dañ ne woon suñ faloo dañuy gën ci day gën ci conseil. Mhm, de la magistrature. waaw mais c'est pas de sa volonté am ne. la parole li mu fa des nekkul coobareem aussi. la parole donnée. Mhm. la une promesse. Mhm. à travers une parole donnée. dañ ko war a exécuter. kaddu. kaddu kilifa. da nga koy jëfee moo fi toogoon ne carrément su ma nekkee président de la république. damay génn ci conseil de la magistrature sama ministre de la justice génn ci mhm. Ousmane Sonko moom da cee wax a wax a wax bu dugg baat vocal façon stigmatisation bu ne def na ko mhm. nee na président de la république dugal loom ci conseil de la magistrature bokk na ci li lëndëmal justice Sénégal mhm. du ko na jigéen ba mu set wicc mais est-ce que nekkul euh, magistrat ñoo war a jël seen responsabilité. yan magistrat mais euh, yi seen biir ñii di d'accord ñii duñ bañ a d'accord pourquoi de sur quoi en fait. nangu ñoom ñëpp bu ñu ba ñaari camp. ñii d'accord pour président toog ci ñii d'accord pour mu génn si. Mhm. mais président de la république Bassirou Diomaye Faye bu joxoon kàddoom ne dama si bokk dama ciy génn. Mhm. na respecté kàddoom na bañ a wax nii wii nii non. Mhm. ñenn ah, du may daf leen ah, bëgg a seen loolu moo tax. non sëñ bi dama ne. xam ñoom seen liberté boobu. xam nga Sénégal xam nga man lan mooy sam problème. pensé aussi xam nga sam problème. Mm. da ngay wax kaddu. Mm-hmm. ñëpp di xaar nga respecté kaddu gu jëfe ko. ñu koy wutal lay jëfe woo ko ay nit di la wutal lay. Mm-hmm. pourquoi sa kaddu jëfe woo ko. Abdoulaye Wade def na ko fi maa waxoon waxeet. gars yi di ko ko layal. Macky Sall ñu ne nii wii nii non ñu ko koy layal. président Bassirou Diomaye Faye même pas trois mois mu ne nii wii nii noonu du si génn du ma dugg. mais ñàkk fa ñàkk fa après ku ne déglu ci wutal explication ak argument. mooy indi explication bëri bi xëy na.